lan la ñuy ragal ci Karim Meïssa Wade lii ñuy ragal ci Karim Meïssa Wade mooy li ñuy ragal ci président Ousmane Sonko mooy li ñuy ragal ci Aminata Touré mooy li ñuy ragal ci yeneen candidat yépp mooy président Macky Sall ak ñi mu àndal li mu fi nekkee depuis 2012 mooy éliminer ak liquider les candidats mooy li ñu fi nekkee mooy naka la ñuy fexe ba mooy ci nguur gi téeméeri at buñ ci ngoyoon sax ci loo xam ne dafa jaar yoon dafa respecté yoon ak constitution amul problème waaye buñ ci ngoy ci liquider ay candidat lii la ñuy ragal ci Karim Meïssa Wade moo tax oui tous les démocrates doivent faire face face au président Macky Sall président Macky Sall bu dee dafa am jafe-jafe ak Amadou Ba bëggatul Amadou Ba bu dee waa APR bëggatuñu Amadou Ba nañ ko régler seen biir parti ak seen biir constitution te bañ a manipuler ak instrumentaliser les institutions na bàyyi di manipuler assemblée nationale ak manipuler conseil constitutionnel dama ne man kii Malick Sagna li ma doon wax dëgg ci conseil constitutionnel laa ñu wax ba tey ci conseil constitutionnel xanaa tey la APR ak Macky Sall ak Benno Bokk li di lijjanti la corruption des juges constitutionnels kan moo nommé jëlee cour suprême Mamadou Badio Camara mi nga xam ne dafa refuser def sa déclaration de patrimoine yóbbu ko conseil constitutionnel kan moo ko def kan moo ko def ku dul président Macky Sall donc oui APR Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar bu fekkoon leeral moo dinañ commencer par leeral fii xaalisu assemblée nationale dinañ commencer par leeral fii li nga xam ne moom mooy jiwu béykat yi ndax mu ngi jëm ci béykat yi dinañ commencer leeral fii lan moo tax étudiants yi seen université yi depuis cinq ans six ans sept ans mënul pare loolu moo tax loolu moo tax APR Macky Sall ak Benno kuy ut corrupteur da nga président Macky Sall Benno Bokk Yaakaar ak APR mooy nga li ngay ut loolu moo tax mënuma seetaan ñu tëb samay dix commissions enquête parlementaire et il n'y a pas suffisamment d'empathie de mes collègues ñu bëgg nangu man ma voté li nga xam ne l'objectif c'est le report de l'élection présidentielle Macky Sall moo bëgg a report pour changer Amadou Ba son candidat waaye itam pour laal ci candidature Bassirou Diomaye Faye ndaxte candidature Bassirou Diomaye Faye da ko rëcc te mu métti ko juge constitutionnel ne ñoo lànk duñu exécuter duñu exécuter ay commandes politiques Macky moo corrompre le mandataire de Yewwi Askan Wi donc kuy ut un corrupteur boo egsee ci Macky nga le parrain le parrain de la mafia corruptrice dans ce pays là. ngeen war a jàpp ne ñun waa PASTEF am nañu ak Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye cinquième président la ñu wax ñun Bassirou Diomaye Faye cinquième président de la République du Sénégal la ñu wax ñun et je lance un appel à tous les démocrates aux démocrates de l'APR aux démocrates de Benno Bokk Yaakaar aux de la société civile aux démocrates de Wallu aux démocrates de Yewwi Askan Wi pour qu'on fasse barrage à cette volonté du président Macky Sall de reporter les élections Macky Sall nag 2012 dafa amoon lu mu waxoon dafa ne Abdoulaye Wade bu reporter élection yi mu taxawal gouvernement parallèle 2 avril duñ ci may une seconde de plus au président Macky Sall